jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou wér ma dem a sawaar sunu kaw ñu ngi ñaanal Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi te di ko ñaanal Serigne Cheikh moom Serigne Saliou Mbacké di ñaanal nag Serigne Saliou ndigal Thioune sunu sang bi yàlla na fi yàgg te ànd ak wér mbokki taalibe bi ngeen séenee lii yéen a ngi fii nga xam ni fii la ñu euh, nag nag Serigne Saliou ndigal Thioune fii la ne ah ngir kat Serigne bi tey ñëwoon fii doon ko xool si nag yi nag ci lim xamuñu sax ni mu toll ndax nag yi gis nga ni xeetu nag yu rafet nag yoo xam ne ñu ngi ko jëndee ba Mauritanie nag yuy suur macha allah jëm ci màggalu Serigne Touba gi Serigne Saliou Ndigal ak ñi mu àndal waa këram ñëwoon tey ngir xool si ko ngir wàaj taay kat da xam ni feek fan yi ñu war koo dàq bu dugg si Touba jërëjëfati Serigne Saliou Mbacké ah fi nag li ngeen gis nag premier convoi booy séréer fii nga nekk nii lii nga seen ba xamuñu nu mu toll premier convoi bi la fi mu ne gis nga fi mu ne nu mu toll yaa ngi seen nag yi yaa ngi seen nag yi nii ñu rafetee yaa ngi seen ah li premier convoi la ah deuxième ah deuxième ñëw de mooy loo yaakaar premier combat beneen nii deuxième camion yaa ngi dikk de yàgg baax camion yaa ngi ci yoon wi di ñëw de sëñ bi noppeegul de waa di ngeen ko séenee ah, a yàgg baax waxal ak gars yi waa Njurul TV en direct. ah xam nga ni xam nga ni non duñ fa toog sax di xaar nag deuxième combat dara jëy Serigne Saliou Mbacke kenn du fi toog di xaar deuxième combat lii doy na sëkk lii Sénégal gépp mun nañ cee màggal kuy tantaakoon mun mun nga ci màggal wàcc ma daan naa la wóorul ku daan kaw ngay féete bëri ci réew mat fa gën a ko gën. sëñ Béthio nii la daan def jaaraama Adra Fall ak ñi mu àndal sonn ngeen gàcce ngalaama barke Serigne Saliou Mbacke ngeen ànd ak Xaadim Cuun sonn lool sonn lool ku ne xam nga ne lii lii ku ko jégil ci ndox mi ànd ak moom lii nekk fi bu waxtu bii jërë jërë ngeen jëf barke Serigne Bamba xoolal ma Serigne Saliou Cuun ndigal ma nga ci biir oto ba ànd ak ay ndeysaan kan moo koy dawalal mooy Seydina laa <laughs> ilaaha illallaah jaaraama Adra Fall mais lii kenn mësu ko Serigne Saliou Mbacke Sénégal te daakoon nañu xam yeewu leen man ta xam naa ne sax yeewu ngeen waaye nag ah du tere nag sonje rek mun ta ñàkk lii daal booy séeréer mbir maa ngoog darmaa ngi lii daal lii daal jeex na du lu ñuy wax du lu ñuy wenante du lu ñuy nangam kon bu soobee Serigne Saliou Mbacke incha allahu rabbi na te ah, ajjuma bu soobee Serigne Saliou Mbacke mu fekk nag yëpp ñëw premier combat baa ngi nii camion yaa ngi ñëw ñu ngi wàcce bu soobee Serigne Saliou Mbacké samedi bu soobee Serigne Saliou ñu dàq nag yi nag yi génn ku ci sa wërsëg nekk man da jàpp naa ne ku fu waaj nekk di am kon na ñëpp ñëw jënatul maxwaa jërë jëfati jërë jëfe Serigne Saliou Serigne jaamu Serigne Saliou yàlla nañu ko yàlla fayal sëñ Mountakha Bachir jërëjëf jaraama Serigne Cheikh Saliou <laughs> waaye booy séeréer lii lan la nii lii da xol sedd na guy jërëjëfati waaye booy séeréer kenn du nag yow nag ah, booy séeréer kenn du yow kenn du yow kenn amul sa pay barke Serigne Bamba yaa bëgg sëñ Béthio nii nga daan defal sëñ Béthio nii nga daan ànd moom tey nga ñëw ànd ak Serigne Saliou cuun ndigal def ko ci kaw ndigal waaye booy séeréer jërëjëfati booy séeréer daal kenn amul sa pay kon am na